asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gisal ngeen seet bopp ni jumaay Tuubaa tey foo sànni matu mu tàkk lenn rekk ko waral mu di ay taalibe yoo xam ni fu ñu toll ñoo ngi diglu ndigal waaye yor sëriñ boo xam ni fu mu toll moo ngi joxe ndigal tey jii di dibeer juróom-ñetti fan ci weeru muharram atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn dëppoog le 2 novembre 2014 mooy bis bi nga xam ni moom la Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalifatul am ni taarifatul moridiya si kàddug Serigne Mountakha Mbacke ibnu Serigne Bassirou tey jëwrinam si liggéey bi joxe woon ndigal ngir ñu wàcce ay kaamil fii si bërëb bu tedd bii looloo waral mbokki taalibe yépp ku nekk jóge si bërëb ñëw ngir jëmmal boobu bés. ndigal la loo xamante ni am nañ ci mbégte. lu rëy a rëy rëy ndaxte suñ si Moxtaar danañ koy ñaan rek mu yàgg fi te wér ndaxte eh, li muy def nii du njariñal réew mépp lay doon xëy na sax ñu ñu koy jëf xamul xamul njariñ li ak nu mu toll waaye njariñ la loo xamante ni waxuma la Sénégal waxuma la Afrique mais àddina bépp lay war. mbooloo mi mën nga leen teqale si góor jigéen mag ak ndaw kenn bëggut a des ginnaaw si ndigalu Seex Sidi Moxtaar yi ngir ñoom ñëpp lenn rek lañuy ñuy xaar. muy Cheikh Sidi Mokhtar jox leen ndigal ba ñu mën koo jëfee. looloo waral gis nga leen ñoom ñëpp bu fekkee góor ñi ñoom ñu ngi jàpp ci njàngum alxuraan mi ak gone yi waaye jigéen ñi it ñu ngi jàng alxuraan waaye seen jëf fa mu gën a yaatoo moo di ci ay berne ak lépp loo xam ne moo di ay xéewal te ñu war koo def ci bis boobu te loolu. bokk na ci li nga xam ne sëriñ Mountakha Mbacké fàttaliku woon na ko mboolem taalibe yi. ci ay lim yu yaatoo yaatu loo xam ne sax mënee su koo lim ci ay baaraam la ñu wàcce ci alxuraan maanaam ay kaamil yu bëree bëri wàcce nañ ko fii ba gis nañu sax ne am nay dongo yoo xam ne kenn nit dong dafa wàcce lii nga xam ne moo di kaamil alxuraan te loolu kenn umpale wut ni Serigne mooy li nga xam ne moom la bàyyi woon ci dëkkam bi waaye Serigne Touba mooy li nga xam ne moom la jàngale woon kon lii nga xam ni moom la taalibe yi taxawoo lii nga xam ni moom la sëriñ bi digle dafay delluwaat rek ci njàngaleem Serigne Touba yi arxaan moom sëñ Tuubaa da ko moom te arxaan mooy lépp ndax euh, bi mu ñëwee ci arxaan rek la doon liggéey liggéey bépp ci arxaan la ko def muy xasiide yeeg lépp arxaan la kon sëñ bi nag moom lam ci namm moom moo ko xam waaye ñun xamuñu ko ndigal rek la ñuy déglu lam ci namm na bu dee jiñ yàlla na jiñu bu dee xëcc yàlla na xëccu li ko murid yéene yàlla na ko dal li mu yéene murid yàlla yàlla na dal waaye arxaan daal ci la lépp ne ndax sëñ Tuubaa dafa dem ba arxaan ni rafa anel quraan rafan xafadaa boo man saa taxadum fan xafadaa arxaan yëkkati dootuma daanoo ku sàkku sama suufe suufe ba faaw kon sëñ bi bu defee lii ci Alxuraan eh, ñett daal gis naa ko ci murid di moom dégg nañ digal li ndax ñëpp bàyyi nañ jàppoon ñëw ñii ngi ci Alxuraan ñii ngi xasuñu salatu ala nabi bi ci des am na lum ñu bëggal xamuñu ko waaye am na lum ñu bëggal ndax eh, jàmm rek ay am jàmm ami mooy Alxuraan mooy maye jàmm ndax bu fekkoon ne Alxuraan xëy nañ xëy nañ toog jànguñu ko asamaan fekk suuf kon bu wootee ci béréb bii nga xam ne moom gisuñu gër béréb bu ko gën a tedd ci àdduna gisuñu ko ñun gisuñu ko ndax moo moom moo ko wax ana baytalaa xaram tar faxul malaaka ila Touba kon fi ñu toog tey jàpp na ni mooy baytalaay xaram kon bisu jël ko gën a tedd kon nag lii mu defee ñu ngi ñaan ci barke barke Alxuraan li mu yéene yàlla na ko dal lim nu yéene yàlla na nu dal daal li ma mën a gàttal ci gàttal suñu xol fees na ñun murid yi ndax lii moom mooy li gën a neex ci àdduna ndigal lii moom ku ko fekkee jëf ci rek santal yàlla waaw. seetlu ngeen ni lu wuuteeg jàng alxuraan mi yaatuwaayu barab bi day tax mbooloo mu bari man fee teew. mbooloo fu muy teew fu ne dina laaj ay berne yoo xam ne ñoo fa jëm waaye dingeen gis ne ay kuréelu xasaayit tamit dina fa jib waaye Baay Faal yi yi nga xam ne yëngatu ci Zikrullah di suñu ginnaaw ku nekk bërëb ba nga toog yaa ngi bëgg fësal sa mbëgti yaa ngi bëgg a fësal si yéene si bii bis ngir ku nekk yaa ngi wane li nga xam ni moom nga man ci ay basmala wala ay astaghfirullah wala ay salaatu ala nabi ku nekk place ba nga toog la nga man si jaamu yàlla la nga man si liggéeyal Serigne Touba yi yaa ngi koy def. ci bis bi fas yéene jaamu yàlla rek ñaanal Serigne Sidi Makhtar Mbacke mu yàgg fi ba naalam naal yëpp mu dund ba eggale ko ak wér ak wérle mu yàgg koo def ñu yàgg koo taxaw mu yàgg koo ñaan ñu yàgg koo fekke ci barke Serigne Touba barke Serigne waaw ñu ngi indi kafe yi ñu ngi indi meew ñu ngi indi. tàndarma ñu ngi andi tàngal ñu ngi andi laax yi ñu ngi andi lépp rek ceeb yi yëpp rek bernde yëpp ñu ngi ko indi mburu yéeg lépp rek ñu ngi koy indi lépp rek ngir borom bés bi waaw njàng nañ waaw ñu ngi jàng alxuraan jigéen ñëpp ñu ngi jàng alxuraan góor ñi ñu ngi jàng xale ndaw yi ak mag ñëpp ku mënta jàngit yaa ngi sukkurus salaatu ala bi di def say parteef si noonu la ñu ko jàppee ginnaaw bi nga xamee ni julli nañu tisbaar ba noppi nag sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu moo yoroon kàddu sëñ bi si bii woote moom mi nga xam ni moom la sëriñ bi taxawuloon lii nga xam ni moo di wàccab alxuraan mi tam mu ànd kook waa raabital alxuraan yépp nekkoon nañu si bii bis sëriñ Muntaxa Mbàkke ginnaaw bi nga xamee ni julli nañu tisbaar ba noppi moom si boppam si kàddoom gu sell moo yëkkati li nga xam ni moo di xatnu bi jàngal ko boppam نحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات ذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات innaka mujibu daawaat allahumma taqabbal minna xatma alquran wa tajaawaz anna ma kaana fi tilaawatihi min sahwin wa nisyaanin aw taxriifin aw taxriifin aw taqdiimin aw taaxiirin aw ziyaadatin aw nuqsaan aw taawiilin alaa gayri maa ansaltahu aw taajiilin ind aw taajiilin inda tilaawatihi wa kasalin wa zaygi lisaani wa wuquufin bi gayri waqfin aw idgaamin aw idgaamin bi gayri mudgamin aw izhaarin bi gayri bayaanin faktufu minna faktufu minna ala tamaami wal kamaal wal muhaddabi min kulli alxaal warzuqnaa warzuqnaa warzuqnaa fadla man fadla man qara'ahu muaddiyan xaqqahu ma'a al-a'daa'i wal qalbi wal lisaani وهب لنا به الخير والسعادة والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان نبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتاب كتابنا وسير حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على صراط واسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وفائدنا wa faidana wa faidana wa sabiqana ila ila ila wa qaidana wa qaidana wa saayiqana ila jannati naim allahuma ijal anisana fi lwaxshati wa musaaxibana fi lwaxda wa musaaxibana wa musaaxibana wa musaaxibana da ko kii wa musaaxibanaa fi zulmati waddarinaa fi lxayrati wa munqidanaa fi lfitnati wa asinaa bihi min alzayqi walahwaai wa kaydi alaadaai yaa raxmaanu yaa raxiimu allahuma ixtim bi saadati ajaalanaa xaqi bi ziyaadati amaalanaa waqrun bilcaafiyati guduwanaa wa aasaalanaa wajal ilaa raxmatika masiiranaa wa maalanaa wasbab sijaala afwika ala zunubina wa mun alaynaa bi sitri uyuubina اللهم اجعل تقواها تقواك وزادنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا ونبينا محمد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 ginnaaw ba nga xam ni sëñ Muntaxa Mbàkke ibnu sëriñ Basiru jàng na xatnu ba ba noppi daal di yëkkati ay kàddu yu soññee yoo xam ne yaatu na weesu na sax lii nga xam ni moo di taalibe yi waaye yoonu murit waaye message boo xam ne da koy lancé ñi nga xam ni ñooy jullit àddina sépp ngir ñu gën a farlu gën a dëgg ci li nga xam ni mooy seen diini ba gën koo sàmm. mbokk yi fi teew yëpp moom mi joxe woon ndigal li di leen sant di leen gërëm bu baax ci taxawaay bi tàmbalee ko ñu yor taxawaay bi nga xam ne ñoom la seen bi joxoon ndigal ñu jottali ndigal ñu jottali ndigalam di nga di nga xam ne ñoo yor taxawaay bi ci wàllu googu ci waxtu wu nekk ñu ngi leen di sant ñoom seen taxawaay bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal borom wéral leen te yàggal leen lool di leen dolli kàttan ba ñu mën a àggale seen yéene ci liggéey bi ñoo ngi sant bokk jullit yépp ñi nga xam ne am nañu tawféexal teew fi def yitte yi nga xam ne moo ci war rawas ñi nga xam ne ñi ngi doon jàng jàngal Alxuraan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey eh, loolu lépp nag gannaaw ba nu sante suñu borom nu booleeg sëriñ bi eh, gën a sant sëriñ bi ñu nu amul lu dul moom tey ëllëg di sant itam suñu kilifa Cheikh Sidi Muxtaar di ko sant ci taxawaay bi bu baax a baax a baax a baax mënuñu ko ñàkk taxawaay bi mënuñu ko ñàkk te duñ ko doyal mukk te du doy mukk feeg bis penc bi kon noo ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam di ñun ñëpp itam ni mu koy waxee rek war nañuy di teewul waxtu wu nekk di di bitt ci bàyyi ko xel di ko ñaan suñu boroom bàyyi ko fi sëriñ bi mu nekk ci liggéeyam bi lu yàgg yàgg yàgg yàgg te ànd ko moom dama ko na ko bëggee dama koy sant bu baax a baax a baax. kon xanaa rek soññi ndax ndigal lii nga xam ne moom la moom la sëñ bi joxe euh, ñu wuyoo ko nii ko wuyoo jëfe ko nii ma ko bëggee nii ma ko diglee baax na ci waxtu wu nekk dafay mel ne nag àdduna sax ni la baaxoo waaye dafay mel ne nag waxtu wu nekk rek euh, jóg jëm ci sa borom daf koy gën a daf koy yar te lii lépp jublu ci ndigal li lul nu daldi ci suñu borom rek dellu ci suñu borom moo nuy musal moo nuy noppal moo nuy dimbali kon dellu ci suñu borom rekk mooy li nu jikk leneen jigunu sëriñ bi doy na sëkk ci jullit bu mu mën a doon bu jëkk bu mujj sëriñ bi sëriñ bi doy na la ab soññ ndax adduna ak li ci li ci biiram lépp sëriñ bi soxlawu ci dara sëriñ bi boroom dong moom la soxla moo doon aajo moo doon jitteem kon nanu góorgóorlu sëriñ bi kat bëggul ci nun dara lu nu jaamu yàlla liggéeyal ko te yàlla tax loolu dong la bëgg ci nun kon war na noo xoolaat suñu bopp bu baax kenn ku ne ci ñun muy góor ak jigéen muy muy mag muy ndaw kenn ku ne na xoolaat boppam xam na lëmu sédd boromam xam na lëmu sédd sëriñ bi bu ca xelam dalee na gën a góor góorgóorlu bu baax yokk ko bu ca xelam dalut na góor góorgóorlu ba xelam gën caa dal loolu dongkat moo nuy amal njariñ amul leneen leneen leneen loo xam ne du dul dolli nu ay jafe-jafe baat baat jamono jooju bay xew du dul dolli nu ay jafe-jafe jëm ci leneen lu lu lu sunu ci gannaaw sëriñ bi amul nu benn njariñ dañuy dolli ay jafe rek àdduna moom xëy na dëgg la nii la baaxoo sax mu sa jàkk waaye suñ jamono ji moo ci raw sëriñ bi ndokk Cheikh Sidi Moxtaar ndokk bi nga xamee ne itam jëpp mi ngi ko jëmee ci sëriñ bi jëme yitte si sëriñ bi moom moo jëme yitte ci sa borom rek kon ndokk bi nga xam ne itam jëpp jëme ni ko ci sëriñ bi lii mu digle jamono ju ne waxtu wu ne baax na la baax la am waxtu wu ne baax na am na njëriñ waaye dafa mel ni suñu jamono jii nag moo ci raw lu ci bari ñu yaakaar ñu ci bari dégg nañ la nga xam ne moo xam ci réew islam ya ay julliti kese di reyante seen biir te adduna rekk tax loolu képp jar na jóg jëm ci lii sëriñ bi digle dellu ci suñu borom waxuma la sax réew yi waaye mën naa cee wax menn réew moo xam ne muy Filistin fa nga xam ne fa la masjidul aqsa nekk fa la nga xam ne fa la su su su su yonent bi foofu la rañaane wu jëm ci boromam foofee ay noona ko wër kap aw ay ay néew joole dëkku fa noonu yooyu bëgg leen génne foofu di leen buntu xasaal ci wet bu ne di rey di jàpp loo ko soob mu def ko ndax ëpp gëm leen ëpp doole loolu kon lu néew néew doole lii jar na di ko def waxtu wu ne ngir ngir ngir liggéey lislaam la ci suñu kem kàttan ginnaaw moom ku gis loo xam ne gënut boo ko mënee faj da koy faj fa saasa boo ko mënut faj nga wax la la naqari lépp bu mënut wax nga am nga am naqar xol bu wóor wu xóot ci yow ngir jëf ju bon ji nga xam ne moom nga yëg moom nga gis kon lii sëriñ bi digle alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi nu amee kilifa goo xam ne waxtu wu ne mag nu jéem a delloo ci sëriñ sëriñ bi nan noo ngi nan sant bu baax a baax a baax nan sant bu baax te góor góorlu nag nan dellu ci suñu bopp kenn ku ne ci ñun ñi fi teew ñëpp ak ñi koy dégg kenn ku ne ci ñun na dellu ci boppam seet diggam ak borom seet diggam ak sëriñ bi la mu la la mu def ci loo xam ne na ma ko waxoon léegi rek la mu jëf ci loo xam ne dal na xam jigéen ma boromam alhamdulilah rabbil na ko yokk la mu sàggan diggante boromam ak diggam ak sëriñ bi xam na ko na ca góor na ca góorgóorlu fas yéene jóg ci càggante googee muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nun ñëpp ñoo ci yem nun ñëpp bëgg mucc tey ëllëg ñàkk xam ak sàggan rekk fi nekk damay wax ni ku gëm yàlla gëm gu wér gëm alaaxira in fokk da nga xool sa bopp soppi saw doxin xam ngeen ni ma wax kon nan lu bu baax te xam ne eh, ña nga xam ne ñoo daw jëm ci seen boroom ba jege ko lool ñooñu seeni bàkkaar moo di noo noo goo xam ne jëmul ci yàlla loolu mooy seeni bàkkaar moo tax ñuy wax ne eh, yii yii gaa ñu baax ñi mooy ñaawteef ci gaa yi jege yàlla yi kon eh, jëm ci sa boroom amul waxtu waxtu boo ci amee tawféex rek santal yàlla te jëkk te te te fëx daw lu dul jëm ci sa borom kon jëf sëriñ bi moom mi nga xam ne waxtu wu ne mi ngi nii delloo ci suñu borom di ñu diggal loo xam ne njariñal jullit yépp lay doon ñu ngi koy sant bu baax di leen sant yi ñi nga xam ne taxawaay bii sàmm alxuraan jëfe alxuraan di bëggee alxuraan di dundee alxuraan loolu mooy seen liggéey ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax yoon waa ngoon ñu ngi sant bu baax nag alhamdullah rabbil alamin euh, Cheikh Mouhamadou Bachir mi ngi fi mu Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ mu Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Bachir mii mu Cheikh Habib xam ne ku ne xam na ko ma doon yilimaani dëkk bi fa tabarakallahu ñi ñii di ku ne euh, xeet naa sama bopp ci taay bi waaye doon na man nag ci ci jotaay bi ñoom ñooñu ak seeni rakk ak seeni mag xanaa ñaan rek su borom mu gën a sàmm Seex Sidi Muxtaar ci gën dafay bàyyi lu yàgg yàgg mu nekk mu gën a mën a nekk ci liggéeyam bi gën leen fi bàyyi yéen ñi nga xam ne yéen ay jëwriñ yi sàmm alxuraan leen di ñaan ñaanal yéen itam sunu boom sàmm leen sàmmal leen te bàyyi leen fi wéral leen kattanal leen ba ngeen gën a mën a nekk ci lii ngeen nekk sama sang si dëgg la maa leen def ci maa leen def ci wet waaye man kilifa laa leen def na ay sang laa leen jàppe ñoom ñii nga xam ñoo fi teew teewal fi ñi seeni seeni bokk yi fi teewul ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu ngi doon la ñaan bu baax a baax wax nu gën a ànd ak Seex Sidi Maxtaar ci tiim ji gën a ànd ak yéen seen taxawaay bii te sunu borom tëlewul dara mu def ci noonu nag lu wér lu jar bëgg ngeen bëgg bëgg Sëriñ Tuubaa ba mu doy leen lépp mu dolli nu nag ban man a gën a tegu ci yoonu ma bëgg mu bëgg mën a gën a mën nekk seen i jëwriñ ma mën a gën a ànd yéen loolu noonu ko nan ko ñaan ñu ñëpp ñaan ngeen ma ko ñaan kilifa mun la ñàkk te kilifa nu mu mel ñi noonu rek la ñuy mel kon nag na ngeen leen na ngeen na ngeen na ngeen leen di ñaanal man ba noppi mag laa ay ñoom ñii ay ndaw lañu na ngeen leen ñaanal suñu borom tëbb leen gën leen a dolli xel mu rafet mu leer gën leen a dëgëral dolli seen i pëstéef gën leen koo dëgëral gën leen koo sàmmal yokk gën leen a yokk seen yitte xam li nga xam ne moom lañ am mësoo liyaat yi nga xam ne moo leen moo tegu seen kaw ñu gën koo xam mën koo ëpp doole mën ko jefe bu baax a baax a baax wax liggéeyal ko sëriñ Tuubaa lépp sax dàkk ci liggéeyal ko ci islaam sax dàkk ci liggéeyal ko ci bopp ci suñu lépp nag damay wax ne liggéey liggéeyal sëriñ Tuubaa dañ koy tàmbalee ci suñu bopp dañ ko liggéeyal ci suñu bopp ba koy liggéeyal suñu bopp mooy jéem a defaru rek ba suñu xel daal seen gën a jébbal jébbal ñu gën ko jébbal suñu bopp la ca doon door caa dolli nag yeneen yu mu mën a doon lu baax li baax lu mu mën a doon rek loolu ca mën rek dañ ko def am ca positif liggéey ko sëriñ bi ak lu mu mën a doon kon jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax a baax a ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ni ma ko waxee nag eh, xëy na fi ma toll ma ngi ma gën a ñaar seytaane gën maa sori waaye mag gi ñëw na eh, doole di gi mi ngi fi waaye alhamdulilah rabbil alamina eh, sant naa bu baax ci li ma weesu ci lépp kon moo tax ma bëgg ñi ñaan googu eh, Cheikh Mouhamadou Bachir mii Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Mamour mii mu Cheikh Mouhamadou Fadil sëriñ Bachir mii mu Cheikhul Habib ngeen xam ne seen taxawaay mat na sëkk eh, xeeb naa ci sama bopp lool man ci taxawaay bii xam naa da ngeen ma ko yéene rek yéene ma lu baax rek waaye xeeb naa ci bopp lool waaye ni ma ci xamee sama xeebee sama bopp nag ñoom ñi leen ñi leen ñi laa ci ñi leen laa ci ci ci ci jataay bi ci taxawaay kon eh, ni ma ko ñaanee woon rek yëru baamtu yàlla ko suñu borom defal bën gën a mën a eh, jublu sëriñ bi bën gën ko mën a jox suñu lépp bën gën a mën a sax ci liggéeyale ko suñu lépp naa di wax sax man ci waxi daanukat naa wax ci waxi daanukat noonu suñu jaamu yàlla dafa ñu fasaale ci liggéeyale ko sëriñ bi koo liggéeyal nag moom ci boppam ci lépp lu baax kem kàttan man noonu laa ko gisee kon maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax lépp loo xam ne ak matadi la gu ma weesu ak matadi la matadi la gu matal la matal la ji gu lu mu jëm maa ngi koy bu baax a baax a baax di leen ko seeral yàlla nañ ñu maase suñu borom may nu yërmandeem gàttandoon ak njëgalam bi ak biti gën ñoo xiir ci boppam gën ñoo xiir ci sëriñ bi gën ñoo xiir ci lépp lu baax lu war a jëf eh, jërë jëf yéene ji moom buñ fanaanoo itam. liñ bëgg waxtu jeex. waaye alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi bu baax a baax ginnaaw ba nga xamee ni nag Serigne Mountakha Mbacké yëkkati na ay kàddu yu soññee jëmale ko si mbooleem jullit ya fa teewoon yëpp mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo doon dégg kàddoom Serigne Mountakha Mbacké tàllal loxo mi sell yooyu ñaanal mbokki taalibe yëpp waaye ñaanal mbokki jullit yëpp ñuy ñaanal ñun ñëpp nag Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yàgg ñoo jox ay ndigal. waaye it ñun ñu yàgg koo jëfe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu